Ensuite, à notre collègue Abdul Aziz Diop. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur les ministres, collaborateurs des ministres, honorables collègues, Monsieur le ministre, je vais commencer ma communication, c'est santé Alhamdulillah, Rabbil Alamin parce que le 9 mai 2019 le PDS avait fait un communiqué il était pour un dialogue mais pour un dialogue constructif pour un dialogue qui a renforcer la démocratie mais pour un dialogue qui a du bafouer acquis démocratique aussi donc au le mois de juillet 2021 li a un dialogue bi yëpp ci man d'abord ci sujet monsieur le ministre loolu su ma la ko waxee nag mooy que ni dafa am ay points yoo xamante ni moom la les points cruciaux ma jël si benn rek muy neutralité nit ki nga xam ne moo organiser élection yi. moi je pense que rien que pour ce point là waroon nañ mën a toogaat xoolaat seen texte bi. ba mën see juboo ne serait-ce que pour l'intérêt et la stabilité dans ce pays là parce que nag ñëpp a ko soxla bu ñu fàtte monsieur le ministre dafa am fu ñu muy les événements les émeutes du mois de mars donc yooyu mu nekkoon yoo xamante ne nag. defe naa rien que pour point boobu waroon mën a toog waxtaan si ba nga xamante ni bu kenn dina du amuñu en code consensuel mais rien que pour ce point là ñun ñëpp dinañ mën a d' accord que ni consensus am na. monsieur le ministre pour nag suñu non participation ñun PDS ñëpp xam nañ ne duñu parti bu ndaw ñoo yor suñu cëggalu guy tamit suñu agendar kenn duñu ko déroulé fa ñuy dem daf ñuy leer nañu ñu ñu dem si dañuy am yàqin que ni lañ fay wuti daañu ko fa fekk. mais du ñu dem si loo xamante ni dañ naan ji fii jaafaa jëf lay doon te nag ñëpp gis nañ dialogue ba fa mu mujjee donc kooku ñun nangu nañ que ni mënuñu si woon bokk simulacre de dialogue moo fi amoon ñëpp gis nañ débouché yi soit entrisme la wala transhumance comme ñun nag gëmuñu loolu dañu gëm que ni dëkk pour démocratie ba dox dëggantaan il faut ña gañe nguuru ñooy opposé nag nañ leen bàyyi ñu opposé ku nekk joué ba mu baax rien que pour l' intérêt de la nation monsieur le ministre dem buñ fekkente ne dañ nañu dañu indi un code consensuel et consensuel je mets ça entre parenthèses monsieur le ministre Code la ñëpp d'accord accord Donc dernier ni de bon point de désaccord moi, consensus consensus moi. pour ña fa demoon moi. moi ma jàpp que ni peut être demoon une fa de bonne foi aussi ndax a un mirage a un jaayoon mais ba ñu duggee ba si biir gis nañ que ni loolu lépp nekku fa et j'en viens à ma question Bon, je vais dama ko poser lors de la commission cette fois-ci yow la koy adressé parce que je pense que bi may la commission je l'avais adressé à la présidente de la commission concernant l'acte administratif bi nga xamanteni mon mot convoqué mon moo de loi bi ñu voté ko en procédure d'urgence j'aimerais juste savoir elle a essayé de répondre dont nak réponse bi xam xawna parce que jógee nañ article 5 ba ñëw article 73 donc yoyu xaw leerul won sama maintenant yow en tant que ministre bi wara tok fi défendre projet de loi bi may laaj mom duma wax ak mom le président peut-être mom jot na lettre am teyé na ko mais yow en tant que ministre est-ce que jot nga acte administratif bi ko yóbbu loi bi en procédure d'urgence beneen registre aussi monsieur le ministre ma yaakaar que ni Sénégal fi ñu toll Afrique di ñu gete ak duñu diñu di ñu xool ñëpp modèle de démocratie sénégalaise aujourd'hui bu nous toogee est-ce que du ñu am jàqare nous ñu du di dégg Sénégal si yenn Cuba yi man Cuba laa koy tuddee parce que loo xamante ni bu ñu ko indee tey mën na gaa opposants. opposant moi je pense que nous avons problème day am et problème réel de démocratie mom moy am monsieur le ministre aujourd'hui aussi il est grand temps que nous, au Sénégal nous nangu que nous waro oser les grandes réformes les réformes nag nañ ko bàyyi li ñuy def dañ koy ñeme xam yoon bi dem jëliko pour nak wo xam mu nekk lo xamanteni day nekk Ben at nous bu consolider mu nekk lo xamanteni moy mooy nekk livre de cheveux au Sénégal ñëpp mën see dem mais bu fekkenteni à chaque veille de élection constitution dañu code électoral moi je pense qu'il y aura toujours des problèmes pour ça monsieur le ministre peut-être aussi di wax ni rek débat si code boo consensuel moi je pense que nous, koy seetaan opinion bi de consensus Donc, Donc, nous jéem nañ jouer théâtre nous inscrire retirer retirer nañ leen la mais loolu allons faire que ni rek nous privilégions privilégier dialogue de te mu le dialogue a xamante sincérité des cœurs Le dialogue de la nation sénégalaise de l'avant moi je pense qu'aujourd'hui opposition comme pouvoir doit toogee 79 inscrits mais il y a moins d'inscrits parce que nous avons wax que nous, sommes Sénégal c'est pour l'intérêt de la nation sénégalaise encore une fois monsieur le ministre il faut qu'on ose les grandes réformes parce que nak xëy suba teel ñëw fii servir ñu code bu saful yàpp saful jën aussi ça prête à je vous remercie. je vous remercie la parole est à notre collègue Abdou Aziz Diop se prépare après lui notre collègue Déthié Fall.